bi nga xam ni mi ngi koy amal jamono ji nag gannaaw euh, kawlax ni ñu ko ubbee ci njalbeenu xibaar yi mi ngi jël euh, kàddu gi nag ca diwaanu Kédougou Kédougou googee ca diwaanu Kaffrine laata muy jàll Kédougou dinañu dellusiwaat euh, léegi ak Omar Ndiaye ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa moom président de la République waaye nag euh, ci sànq bi mu yëgee nag ci tribune bi foofee ca diwaanu euh, Kaffrine Omar Ndiaye mi ngi ñun na ci ligne bi dañ koy daal di fekki kon en direct ca foofee mbir mi doon amee Omar maa ngi lay nuyu. Euh, président de la république wax na ba noppi waaw jamono ji sax mooy àdduna yi. nga xam ne nag jël ay engagement. yoo xam ne jaar na ko fi nga xam ne moom moo di ci Kaffrine rawatina fi nga xam ne tamit fa la toog ci yam bokk na ci barki dem rek dégg nga waa conseil départemental bu Malem Odar mu ngi wax ñëw na tey ci kàddu yooyu ne Malem Odar dana ci jël ay matukaay yoo xam ne dana baral loxoom daal nga xam ne dégg na ay kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ci ndaal yi nga xam ne danañ ko jëlee ci Malem Odar engagement bu jël na ci li nga xam ne moom bi président Macky Sall ko def ba léegi ci lu gaaw gaaw gaaw dina ñëw ci moom mooy ci soxla di Macky Sall domaine bu Bulel bi nga xam ne mooy tag bi nga xam ne zone de RSM wax na ci lu gaaw lu toll junni emploi dañ ko liggéey te ci mois de juin bii nii nii nii dina laaj li nga xam ne tamit moom moo di appel d'offre bi mu toll quatorze milliards maanaam dix di ci moom moo di ci Euh, la Omar Omar foog ma foog foog foog ñu yem fii parce que dégg bi neexul da nga jege président comprendre nañ la mbooloo mi ni mu bëree moo tax dinañu dellusiwaat ak yow ci digge yu bëri yooyu nga xam ni président digge na ko bokk na ci dagg bi ak coow li ci Malem Odar ak yeneen i mbir yoo xamante ne ni indi na ci ay tontu président de la république ñu ko doon dégg noonu nag ci suuf mu toll ci wax ak askan wa Omar Ndiaye di wéy di ko déglu gannaaw bi dinañ ci àndaat ak moom.